maam sëriñ Tuuba ne ko dama ñàkk ndey hmm. ñàkk baay hmm. ñàkk nijaay hmm. mu bëggoon a ñëw def ngay sama ndey di sama baay di sama nijaay sëriñ bi ne ko delluwaatal fa nga jóge woon boo àggee nga def jaam yàlla muy ndey nga def liggéey sa baay. Hmm. nga def muñ. muy hmm. sa nijaay. Hmm. foo nekk. maa ngi sa wet. sëñ Tuubaa nee na. kër gi. ku yóbbu yar bi. bàyyi woo fi dara. ko fi bàyyi. yóbbu woo dara. sëñ Tuubaa nee na. nit ku ne. ñaari biir nga am. sa biiru bopp. aj sëñ Tuubaa nee na jàmbaar dëgg du xuloo du xeex day muñ baam nim bëgg sëñ Tuubaa nee na wàccoonu maa yéen wax naa ngeen dégg jëf naa gis bind naa bàyyi ci sëñ Tuubaa nee ku wex xàtt da gaynde da nga wéet da mel ne gaynde sëñ Tuubaa na àdduna jërul illaaxira taajeer jërul ñàkk لأني يحجب الكعب sëñ Tuuba nee na na ngeen góorgóor ci ndigal ku ndigal taxanaa de boo jigee dana dagg sëñ man koo taxaw ba mokkal alxuraan te defoo ko dara jël ko ci kaw suuf daa doolu xam suuf sëñ Tuuba dafa mas a wax sëñ Mbàkke bu sa ne ko jullit su boolee juróom ñeent yi dara mucc ci àdduna ak ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragal yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fi ñu defee lu bon loo mënut bul ko def loo xamut bul ko wax ci sa yoon nekkul nga génn ca sëñ Tuuba nee na àjjana joo xam ne lu la neex wax lu la neex def am na jooju àjjana ku ko dégg fenn nag baya boo dem fa sëñ Tuuba nee na seen juróomi bu mm-hmm. ñu xam seen juróom yi mm-hmm. seeni waajur bu mm-hmm. ñu xam seen naqari deret seeni njaboot bu ñu xam seenu may waxtu julli bu ñu xam seen itte seen barab liggéeykaay bu ñu xam seen taaweer seen dëkkandoo bu xam seen ñaari tekki <laughs> <laughs> ah.